à toute organisation. Mmh. léegi nag ñu dem ba deux mille ba deux mille vingt et mu commencé oui ou non ndax dina nekk candidat parce que yenn saa mu dugal benn affaire ainsi de suite ñu dem nag ba cëppaandaw ga waa ji kii nu mu tëree gaayam yi ne moom mooy seen candidat ku nekk di ko investir investiture bi mel ni tull ak male fortuna ci Sénat ba le samedi fatidique mooy samedi boobu avant muy def déclaration. Mhm. il y a eu 557 élus locaux de maire et de président de conseil départementaux ñu dajaloo ba ne ko yow la. il y a une phrase qui m'a marqué mooy bi lim bi li yum wax ne ko budul yow du doon keneen du doon candidat te boo bëggee parti bi tas wala coalition bi tas na bañ a nekk candidat xam donc ça dire que ñooñ ñëpp ils étaient dans une dynamique de porter la candidature du président Macky Sall léegi nag mais lundi le réveil a été brutal mhm. parce que président Macky Sall xamal ne àdduna ne moom du nekk candidat léegi nag du nekk candidat il faut ñu wut candidat léegi ci wutum candidat boobu ñoom ñëpp la conférence des leaders ñoom ñëpp dajaloo nañu xamal ko ne yow yaay tànn kiñ fii kiñ ki kiy porté suñu drapeau léegi na ci biir loolu am na ay ay ay velléité de révolte yu am côté parti socialiste Jean-Baptiste Diop déclaré na candidature am bon boo gisee Alioune Sarr depuis longtemps aussi AFP déclaré na kon léegi ñoom waa parti socialiste AFP boo xoolee seen démarche ils se sont fait un dessein de soutenir maanaam langaamu ci président Macky ak i désiram du tere nag moom mi ngi leen di cëral. Mhm. ku man teraanga la nag. parce que boo xoolee depuis bi mu nekk ak ñoom wax dëgg yàlla poste yu intéressant la leen di jox gis nañ fi Moustapha Niass nekk président de l' assemblée nationale pendant dix ans. Mm avec un budget de guerre mensuel de cinquante millions par mois. Mhm. loolu yëpp ay yoo xam nga gis Idrissa Seck aussi amoon na cinquante millions par mois comme fonds. nga dem aussi Aminata Mbengue Ndiaye ba léegi. ñu mhm. cinquante donc ça veut dire que président Macky Sall moom ay alliés teral na mais malheureusement ci biir teler boobu rey na partie yooyu. Mhm. tous les partis ont été décapités que ça soit le PS le PS ne ne ne vit plus. Mhm. ka parti bu mel ni parti socialiste marqué histoire politique Sénégal ngay dem ba dootoo am candidat à la présidentielle. te bii boo pour nga am ko il faut nga rebelle wu génn mhm. foofu mhm. nga dem AFP même chose nga dem LD am nañu LD debout LD couché donc yooyu yëpp c'est le problème léegi président Macky Sall est en face de choix extrêmement mhm. difficile choix bi lan mooy difficile parce que moom mooy seul élément fédérateur bi mën na dajale ni ñi beneen affaire bi mooy il n'a pas préparé de dauphin amul kenn ku mu waajal à sept mois de la présidentielle ensuite beneen affaire bi mooy aussi le président Macky Sall ku mu tànn dina am contestation dina am ñuy contester mhm. parce que moom li ko desee bareetul te gars yi leer na la ne bu ci yàlla ànd février 24 day abale lenge yi donc mhm. maîtrise bi mu amoon ak pois bi mu doon peser ci par au fur et à mesure ça va lu mu wax léegi-léegi Aliou Sow am na solo ah, képp ku mënta tànn rek basculement dina am ci l'autre côté parce que ni mu amee unanimité ci biir euh, coalition bi du kenn ku ko fa am ñu nag yenn ci ay candidature bu ci mel ni Amadou Ba ko ñu tudd ko euh, euh, peut-être Abdoulaye Daouda aussi ñu ngi koy tudd ki nga xam ne moom moo di Aly Ngouille Ndiaye ñu ngi koy ñu ngi koy tudd mais am na ci ñoo xamante ne nii génn nañ ñoom pësal seen bopp même fekkente ne tuddaguñ leen mais ñoom ñu ngi wax ne que dañu bëgg a nekk candidat est pas euh, euh, le début de de l'éclatement de la coalition Benno Bokk Yaakaar. mais xam nga loolu tu peux pas le dire tant munoo euh, euh, mënoo mesurer degré de de de de de de de kii de domestication bi nga xam ne moom le président de la République Macky Sall moom chef de parti. département de la coalition Benno Bokk Yaakaar doole boobu degré boobu munoo il faut ñu xam ko ce degré ce que j'appelle le degré de domestication maanaam li mu capable moom ci biir Benno Bokk Yaakaar avant muy nekk avant pendant qu'il était président de la République et après bi nga xam ne mu décidé ni dootul nekkati candidat mhm. pour loolu pour nga xam ko il faut que le président Macky Sall décide ne jour sangam bis sàngam heure sàngam man euh, euh, Demba Ramata laa choisir bu boobaa ngay xam. non tey la tey la ñu gars yi waxoon de àjjuma. waaw waaw mais bon on ndax dina na nekk demain ok. Mm-hmm. <laughs> yaa ngi mais est ba jour boobu mu ko décidé ngay xam ndax gars euh, ndax degré de domestication boobu au sein justement de sa coalition degré boobu am na doole yegg na benn niveau waaw wala déet pour nga xam ko nag. mais gisoo ne yi ñu ngi commencé rebelle wu parce que gis nañ parti am am am candidat. xam nga Ablaye ah, oui oui. te tamit ça serait très ko compliqué wala difficile sax pour yeneen mbokk coalition mi euh, bàyyi euh, le président Macky Sall di choisir ci APR kese kese kese bàyyi leen ñoom wala non moi moi je pense que ni euh, oui di dina am dina rébellion dina am sax ci biir APR dégg nga aussi kii nu mu tudd le maire de colda Abdoulaye Diouf Sarr avant le maire de Kolda et puis ali Ndiaye yi nga xam ne qui n'a pas encore mais on sait ce qu'il ak Moustapha Diop mais mais à mon avis c'est des c'est des surenchères et je ci carte yooyu trois yi au moins man ci sama xalaat kenn laa xam ne mun na fësal yëfam jusqu'à terme te déglu leen ma bu baax mooy ma je pense mooy euh, Aly Ngouille Ndiaye hmm. mais le reste à mon avis danañu euh, céder du côté du président de la République mbir mi xam nga mooy lan comme qui comme qui Bah, les autres. Euh... Amadou Ba tu penses que dina nangu le président Macky Sall choisir keneen bàyyi ko. mais je crois que ñoom ñëpp dinañ nangu même même même même euh, le gars de Kolda la lu mu tudd. Euh, Mame Boye Diao nee na day nekk candidat mais <laughs> il va se plier euh, par rapport au choix du président de la République je le pense. Euh, quelqu'un comme le président Macky Sall d'ici il pèse plus peut-être li mu doon pèse. mais loolu mu loolu mënoo ko xam tant que Macky Sall décidé wul ba pare loolu on peut le supposer comme ça. Mhm. mais teguñu ci dara am pour. pardon waaw léegi xam nga am na ñu ñeneen ñoo xam ne bàyyiwuñu leen xel sax. Mhm. ku mel ni Boun Abdallah gars yi bàyyiwuñu ko mais tey tey Moustapha sax mu ngi wax aussi le cadre du président de l' assemblée nationale mooy Amadou Mame Diop mhm. xam nga ban race laa koy dugal race ñoom Pelé wala Garrincha wala ay Chris Waddle mhm. xam nga lu tax may wax loolu parce que ñoon dañu aayoon ci fente mhm. ak passement de jambe ñoon dañ ci aayoon trop ay Pelé ay Garrincha ay Chris Waddle dañu aayoon ci placement passement de jambe ak fente te boo interroger toujours acte président Macky Sall dafa mën lu muy fent 2019 def na campagne ba pare tuddul ne day wàcce premier ministre mhm. ñu ne nii mu ñëw commencé rek wàcce ko xamul nga mhm. toog na ba mu neex mu créer parrainage am toog na ba mu neex mu indiwaat premier ministre mhm. toog na ba mu neex ba jour ba Mimi Touré jàpp na ne mooy président de l'assemblée président de l'assemblée mu ñëw indi ñu benn Amadou Mame Diop bu kenn xamul. Mhm. peut-être waa Dagana xam nañ ko. Mhm. mais l'ensemble des Sénégalais dans leur immense majorité jour boobu lañ ko découvrir. Mhm. xamul ma loolu dalay won ne président Macky Sall. kenn mënu ko c'est un homme déroutant malheureusement. c'est un homme temps gis nga xam nga à la différence de Wade. Wade da doon clignoter à droite tourner à gos mais kii du def loolu. day clignoter à droite nga yaakaar gos mu taxaw. non mais dañu clignoté sax. dañu clignoté sax ba ngay xam donc. c'est un homme qui surveille gis nga moo tax ñii ñuy wax ñëpp. bon loo boobu mën na ci nekk. que ça soit Amadou Ba Boun Abdallah wala Aliou Aliou Ngouille Ndiaye moom d'après moi il était parti récemment à Touba pour ñaan ndigal xalifa wala tàggu ko pour ne ko daf bëgg a nekk candidat donc ça veut dire que mm-hmm. kooku. mooy confirmer li nga doon wax rek. ça veut dire que kooku merci doyen malheureusement temps bi xot nañu. c'est pas c'est pas waaye léegi dans les heures qui viennent on verra. on verra ki ñu mais na leen leer de. c'est euh. un homme qui surprend toujours. waaw mën na ma sax investir ah wala mu investir euh, Aliou Sow kii see. parce que man Sall kenn kenn kenn mënu.